muy metti ak yow donc boo amee benn buntu tournée boo mën a dem bu leen fi bàyyi di kii yóbbu leen même boo ci dul am dara sax mais seen xol sedd boobu day dalay dalay dimbali ko am na solo euh, naka nga gisee musique bi jamono ji léegi Sénégal. waaw comme ni ñuy wax. musique dox wala doxul. ma nga fa mu nekkoon. ci benn côté mu ngi dox nii. waaw. nu mu ngi dox ci ñun ah. waaw mm. yow mi ngi dox ci yow. waaw bu baax bien sûr. mais est-ce gis nga ni mi ngi dox ci ñeneen. ba peut-être ñoom façon carrière bi ñu jël la. mais lu tax musique sénégalaise c'est-à-dire ñu am potentiel bi am xale yu mun a woy artistes yi talentueux macha allah te ba tey musique bi pour ñu exporter ko ça pose problème. loolu jàpp ne mooy problème ñu ngi exporter musique. ngeen exporter ah. soo di ba arrêté non musique bi mi ngi mi génn bu baax. Hmm. waaw que xam dafa lu mu laaj lu bëri. comme lan te ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk extérieur dofuñu. Hmm. xam nga ñoom nekkuñu ci folklore bi ñoom foog nga foog nga foog nga convaincre leen. Uh-huh. comprendre nga tey am na yaa beaucoup d' artistes yoo xam ne ñu ngi fii ñu ngi gën di toj monde bi ñëwaat toog Sénégal te ñu bëri xamuñu ko. Uh-huh. parce que tey pour man public bi ñoom ñoo ñoom ñoo gën a influencer musique folklore bi fi am. ba tax ñu waykat. artistes yu bëri yaakaar ni c'est ça la musique alors que Sénégal focus la ci Afrique. Mhm. musique dafa yaatu. bu ba nga xam ni tey euh, Mali. Mhm. Guinée ñoom ñoo ñu raw ci musique. Mhm. au niveau mondialement comprendre nga dañ naan c'est grave pourtant musique yëpp lañuy def ñun sunu sunu sunu sunu culture dafa riche. sunu cosaan dafa riche. xam mais parfois dañuy topp mouvance bi am fii. Euh, def benn single xew. def benn musique folklore après taxawee gauche. Mhm. comprendre nga. Mhm. dootoo liggéey. Mhm. sañse ngay tal comprendre nga bon peut-être topp mouvance bi ba tax yow li nga war a liggéey pour percer donc doo ko def. te ñoom Youssou Ndour fa la ñu jaar. ñoom Omar Pène ñoom Thione Seck Lo dañu jaar foofu mais dañu resté. ci seen ligne. xam ci seen yoon ba nga xam ni am benn objectif. objectif boobu boo ko amee doo njëkkante. affaire yi du course parce que am temps boo xam ni mhm. sa carrière daf ko laaj pour nga doxuñu benn temps boo xam ni doo génnee dara da ngay doxuñu nga liggéey comme yow li nga def waa mais bien sûr tay euh, say projet fu mu toll laataa ñu dugg ci projet sax Soriba man dama lay seetlu dama lay xool nii tey tay mm. Soriba man tay xàmmewu ma la parce tu es venu très mou euh, genre euh, gënoon nañ leen xa gënoon nañ la xàmmee ci nga relax te te sori boobu moo neex nañ c'est-à-dire euh, que tu sois beaucoup plus free comme ni nga meloon avant mais mm. tey dañoo sentir je sais pas mënuma ko tuddee maturité mais trop de prudence ci sa communication lu waral loolu da nga jàpp ne da nga def ay ay ay de communication ci diggante bi wala lan la. non pas loolu sax wala conseil la bu nga xam da nga koy topp ci sa staff quel est le problème. non pas loolu sax. parce a free. waaw artiste da nga mais j'ai des enfants qui me regardent à ce mm-hmm. moment ñoo mm-hmm. xam ni maa leen di éduquer samay doom lañ mm-hmm. am ñoo xam ni dañ ma leen dénk ñi ma jiite ñu bëri te may référence ci ñoom donc su ma toogee ci plateau télé ak lu mu neex neex neex neex neex am na loo xam ne war naa ci mën a contrôler wu pas pour man sax mais pour ñoom mais cest à li nga wax dañ la ci rejoindre bu baax a baax parce que loolu day wane ni am nga maturité mooy may wax nii nii dégg léegi ñi ngi sentir benn maturité ci sa ci sa ci sa ci sa communication mais maturité bu ëppee tam ci artiste nag ah Fall maturité bu bëree trop ci artiste da ngay crispé wu c'est-à-dire tey ñu ngi la gis mais yaa ngi tënku yaa ngi fasu bu baax a baax te dama bëgg nga relax. non fasu ma parce que yaa ngi Sénégal VSD <laughs> réew mi yëpp lay seetaan. Mm. réew mi yëpp lay seetaan gëj la eh. gis la gis nga dem ci plateau télé donc réew mi yëpp lay seetaan bàyyeekul euh, waaw waxal lu la saf. fii euh, euh, ñun dañoo civilisé ñun dañoo am suñu gan ba pare dina xoqatal. nga baal ma dafa am ñaari ñaari aspect yu am ci artiste. Mm. ci coté communication. Mm. ci coté bu ñu bu ñu bu ñu jaawale affaire yi. dañ ma invité plateau mu ñëw toog pour ñu laaj mu ma tontu. sama caay-caay. Sénégal xam nañ ko. sama bandit Sénégal xam nañ ko. Mhm. waaw ndaanaan gi ne ci man Sénégal xam nañ ko. ndaanaan voilà. Mhm. donc euh, ku ma fekk ci sama bërëbu liggéeyukaay. Mhm. mooy sama soirée sama événement danga naan du kii moo toogoon nag Penda Bathie di di ah, parce que là waaw lii tamit sori. Euh, man man man man man man man man man man tu vois nekkuma sama plateau dama ñu toog fii pour ñu. waaw waaw dama waaw d'accord d'accord waaye ba tey. ba tey lii ci sa la bokk. ci sa parce que tey ji ku la seetaan. kon kaa ñu wax ci musique. waaw déglu ku la seetaan ñun ba tey ci musique la ñu léegi li ñuy def mooy. ku la seetaan non non non non ma la. d'accord ma parce que li nga bëggoon dialogue bii nga bëggoon d'accord ma parce que am tax d'accord ah. ñëw ñu yem ci musique képp mm. waaye bu ñu génnee en or de musique mm. man du musique rek laay def mm. su ma duggee suma biir kër damay sumi sama mbuubu artiste ah, sama koñ ak fépp fu ma dem bu may nekk ci seen nag dama koy sol bu may mm-hmm. ñëw plateau dama koy sol mm-hmm. tu vois mm-hmm. mais bu fekkee da bëgg ñu wax ci musique mais ñu ngi wax ci musique sori sànq ba tey sori baa mais may laaj ci leneen musique bi loo xam ne en de musique waaw lu tax nga ba nga jëloon décision euh, marqué sa pose musicale lu yàgg après nga reveniraat ak chocolat dégg dégg nañ ko léegi léegi ci portrait bi Abdou Khadre wax ko ko euh, pourquoi nga ñëw ak single bii di chocolat kontaanoo man man man man man kontaanu ma euh, mais ñi nga xamante ni ñoom ñooy say mais ñoom ñooy say fans kontaan xam nga ma sa fans man ma la mais ñi nga xam ñoom ñooy say fans ñooñu ñooñu kontaan nañu. léegi non man du ma sa fans. waaw ah, léegi dañuy <laughs> mais ñi nga xamante ni. non dañuy waxtaan ma ak yow. <laughs> waaw <laughs> kan nga bëgg. man man man yëpp laa bëgg. réew yëpp laa bëgg ko yaate mais lu waral tey jii nga ñëwaat ak ak li nga xamante ni moo di euh, moo di sama chocolat laataa ñuy ñëw ci Ndella bi nga xamante ni vraiment euh, neex na nit ñi waaw sama chocolat hmm. boo xoolee dama def pose nekk ci liggéey bu doy waar donc su may ñëw di di mosal yi di def benn ouverture pour wane ne là je suis prête du ma ibbee mbalax damay ñëw ak sama chocolat pour ñu mélomaan yi laay waxal foofu. Hmm. pour ñu déglu techniquement mélodiquement que am na amélioration. j'ai beaucoup travaillé quoi. Mm. moo tax may indi sama chocolat boo xoolee euh, musicalement dafa bëri diversité. Mm. dafa bëri couleur tu vois et juste c'était ça mu marqué nit ñi neex ñi man mu neex ma trop. parce que mooy waaw parce que morceau boobu dafa fekk ma ñor ba pare sama deret tàng ma amoon envie way. mélodiquement. Mm. daf ma neex trop morceau bi waaye. ma neex trop. après nga daanu si ci li nga xamante ni moo di Ndella la waaw après ma def ay live maye ko donc mu amoon lu des mooy ñu commencé woon tëgg pentola pour ma gën a forger wu ci live yi gën a maîtriser scène musicale bi mm-hmm. ma wut sama benn roku pentola di fa jouer régulièrement mm-hmm. c'était tous les mercredis donc ba ñor maîtriser xam lan mooy live mm-hmm. ban chaleur kañ la nga war a yëkkati sa public moom bu ñu tollee ci moment bii ban way nga leen war a wayal yooyu yëpp c'est à étudier quoi. d'accord mais Soriba man Penda man li ma jaaxal mooy. xam nga yow da mën mun way lool. Mhm. ba jéggi dayo mhm. kenn du la laam-laamee sa mhm. mënub way. rax ki doole ngay jouer instrument muy kora. donc c'est pas donné à tout le monde. bu la neexee nga génn ki traditionnel bu la neexee nga génn ci moderne. mais nga mun woy lool mais ñu gis ni sa carrière dafa mel ni comme du ma ko tuddee ñàkk bayre mais dafa am lu ci des lu bëri lu waral lu lu waral euh, boobu ralenti bi ñuy santi ci sa carrière donte ni yow niveau bi nga toll bi mun naa ni sax réew mi xamuñu la. waaw ci mim réew moo waral loolu. ci mim réew il faut ñu seetlu ni benn affaire saa yi mu bëggee nekk fi présent dama koy def. mais artiste dafa war a présent toujours ah. saa yi ma ko bëggee def ko saa yi mu bëggee présent damay présent. chaque ñi maandal xam ne li wax maa ngi suma studio bopp pour génnee morceau régulièrement chaque mois chaque quinzaine ma génnee son bruit bi bëri je peux le faire plus de deux cent et quelques morceaux yëpp it nag ñii xam nañ li may wax ñi maandal mais cest à fu may waxee mooy. donc da ngay def production de qualité yow. Mm-hmm. yow Soriba. Mm-hmm. da ngay def tout temps ay production de qualité. Mm-hmm. mais maanaam après moosa boobu it bi nu mu ko nu mu nu mu ko mënee nu mu nu mu waree mun a téye buzz bi ci lu yàgg. Mhm. day éphémère et pourtant da ngay def musique de qualité. maintenant ñi jàpp ni yow yaa seetlu loolu. waaw d' accord mun na nekk sama gis-gis. mais ñenn ñi jàpp ni Soriba dafa mun way lool. Mhm. kon tey jii carrière am amaana waroon nañ nga waroon nga toll fi nga xamante ni dégg nañ fa ñoom waali wala keneen ak keneen donte ne nag wër sa jàmm. mais lan moo lan moo waral loolu liggéey bi moo des wala lan la man loolu laa bëgg a xam. du caaginu du hmm. ku nekk ak sa carrière la saa yi man man lépp lu ma am ci musique mérite la. lu que tey bu ma nekkoon keneen doo ma invité du ma toog fii di waxtaan ci émission bu rëy bi du dëgg. Hmm. man man dama dama dama dama dama la ci ci ci ci ci showbiz bi man dama ci daj lu metti man li ma daj ci musique gaw bi Sénégal fii bi musique sosoo léegi am na ku ko daj ci carrière am. li nga ci daj loolu ci ñëpp non may ma rek. li nga ci daj loolu waxtaan dama daj ci musique showbiz bi lu metti dékku ci lu bari nag teewul ma ngeeñu ko parce que waraba laa mooy gaynde yàlla rek laa gëm affaire yi du fuñ koy tudd. li ëpp solo. Mm. mooy réussite ba mu jëntal ba. ñëpp laa yéene jàmm su ma sañoon man je vois des artistes qui